Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. 103.5. UKBFM, la radio citoyenne. UKBFM, nous sommes ici à Toubanda. xibaar yi fii si ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñaari waxtu ci bëccëg fegg na fanweeri minute ca tali bu bees ndaamaatu jàpp kër ñaan Diop xibaaru digg bëccëg li gën a fees ci bopp xibaar yi ñu fas leen ko faram bokk na ci élection yi suba la koy amal fii ci biir euh, réewum Sénégal waaye nag euh, fii ci dëkk bu sell bi de Touba askan wa dëkkee Kër Niang nag bu ñu sàgganoon du ñu génn di wote la ko waral rek mooy ay taay taa ndax yu leen sonal dinañ ci ñëw ak Modou Kane euh, di matukaay yu kilifa yi jël na ko. dañu waxi tamit ci wàllu jafe-jafe yu askan wa yeewoo ca xayra wala xayra quartier Serigne Mbaye Sakho am nañ ko ci lu jëm ci wàllu taataay ndox wi ñoom ñi di xam ne ne jamono ji ngir ñu génn sax doxi seen ay jafe-jafe ba tey tamit ci wàllu élection yi dinañ àddu jëmale ci jamono ji ñuy uh, jëli seen carte électeur yi jamono ji fii ci uh, préfecture wala sous préfet bu arrondissement bu Ndaam askan waa nga fa la ñu nemmeeku rek mooy dañoo xaar uh, ba ci fan yu mujj ñu soog a ñëw danañ dem itam ca département bu Diourbel commune Kër Ngalgu am nañu ambulance ka ko jox di président Macky Sall ci ndimbalal Pape Modou Fall danañ ca ñëw yu kilifa yëkkati nañ a xibaar yi fii si UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye Cheikh Bey mooy ki ne ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye mooy ki nekk ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci euh, Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépp foo leen nekk ci àdduna ngeen ñuy euh, man ñu euh, déglu boo leen defee ñetti w point sunu fm point com xibaaru digg bëccëg gi groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba nañu leen ko junjee woon ca bopp xibaar yeeg lañu koy daal di door rek élection yi ñu fas yéenee door nag uh, suba ci dimanche gi askan way yeewoon nag ca Kër ñan ñoom bu ñu sàgganul kat uh, du ñu wote ndax amuñu fu ñu jaar ba génn la ko waral rek mooy ay taay ndox uh, yu leen sonal lu ni mel waral. ñuy yëglu ñoom ñi di xam ne ne bëgg nañ ci ku leen ci ah, taxaw ndax at mu jot rek ah, noonu yi la ñuy ah, dundeek ndox mi ñi la nag di kilifa yi ñoom it di ci yëkkati ay kàddu di xam ne ne bu ñu àggee daal suba ci dimanche gi li ñu bëgg rek mooy ñu jàppale askan bi jox leen ay wata ba ñu mën cee dugg rek ngir mën a dem daal di wata ji ka ca amalub reportage di Modou Kane ñu àndandoo teewlu ko waa Kër Ñang nekk ci ay jafe-jafe lu mat juróomi at a ngi nii ñuy dund ak ndoxum taw mi nga xamante ni moom moo nekk ci seen quartier bi loolu sax moo tax ñu am ak njàqare niki ci ana fan la ñuy jaar ba àgg ci seen bureau de vote yi nga xamante ni moom moo nekk ci ñaari pëna Moustapha Ndiaye moom mooy coordonnateur association Kër Ñang ndox mi sax ana ñu fi bëgg a jëlee mais mënuñu ko fa jëlee te politicien bu ñëw dig ñu na dinañ ko fi jëlee ñu jàppale la gëm la jàppale dañ ko fi jëlee comprendre boobu ba tëdd bés doo ko mën baax baax waaw nekk ñaari pëne gii nii boo jegee télé bi nii tout gis ko non du yomba jaar faaw nga dem bees

ca man dellu gi gën a métti ndox mi sama buntu kër sax la nekk dellooti nekk ci tarante bi ñëpp di jaar war man a wote ji war a mën a jàppale Macky Sall mu war ñoo mën a dimbali nga calnu suñu ndox mi neel Abdou Lahad Ka ñun waa Kër ñan Ñang na nanu ndax ndox mi sonal nanu amuñu fenn fu nu jaar bu nu ko dee ngaccal nañ ko ngaccal bu nu ko dee sëkkal nañ ko sëkkal jàppale nu bu baax ndax Kër Ñang jàmbaar lan waaye nag ci boppam jàppale bi dafa des ndax ñun taw bu njëkk bi ñun dañoo xawoon a génn ñun ñu sës ci bi ndox mi ci tarante bi la jógee dugg ci biir kër gi waaw loolu taxoon ñu génn ku nu ci jàppale laal ba nga ngaccal nu ko ba mu set defaral nu ko ñu mën a jaar fee ci mbedd yi wote ji def li nu man bu baax baax dinañ sant yàlla bu baax suñ bidon yi mi ngi nii ci ñaari pono boo jaar ci mbedd yi ay ndox la da ngay xuus rek man bi may ñëw fii rek damaa xuus Pape Niass président conseil communal de la jeunesse bu Touba waaye di responsable politique APR nee na président de la république def na ci biir dëkk bu sell bi lu jëm ci wàllu assainissement jaarale ko ci jëw jëwriñam di bi Antoine Félix Diome loolu de moo tax li nga xamante ni moom mooy waa kër ñang daanaka jafe-jafe yi ñuy dund léegi tey mu teggeeku ñu teewlu Pape Niass di président conseil communal de la jeunesse bu Touba. waaw xam naa loolu moom mbirum suñu borom la ndax kenn ku nekk xam na ne jamono jamono hivernal lañ nekk jamono nawet te yàlla moom lu ko soob rek lay def ñun ay jaam lañ duñ man def ci dox ci lim lim jëf. Euh, comme dafa taw nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk nekk ay responsable Touba yëpp nag laay wax muy bépp responsable boo xam ne yaa ngi ci gox jëlal ay moyens nga def ko ci transport ñu dem génn ji nit ñi yóbbu leen ñu vote ji ndax kenn ku nekk xam na ne taw na mbedd yi taana métti na nag waaye ñuy tàll loxo son excellence monsieur le président Macky Sall di ko wax ne ko dëgg la assainissement mi ngi ci def kémtu lay kàttanam waaye ñu ngi koy ñaan fii ci Touba Kër Ñam Ngiraaneen yoonu Daaru Rahman ndaamaatu dafa nekk lieu yoo xam ne nii kenn ku nekk xam na ne ndox mi dafay bari li fi def lépp gis nañ ko waaye dañ bëgg gën ko yokk defee ñu gën a mën a def li ñu bëgg ndax fi mu toll nii mbedd yi moom fees na dell ak ndox waaye nag ñun dañ def lu maximum ba nit ñi génn dem wote ji sant ko gërëm ko Modou Kane ci reportage boobee mu def ca Kër Niang jafe-jafe yi ñuy dundee ndox mi ak élection yi ñu fas yéene dem suba looloo ub seen bopp ñeneen ñu seen bopp ubu di ñu nekk ca quartier xayra 1 wala quartier kër Serigne Mbaye Sakho ñoom itam nee nañu ay jafe-jafe yu métti métti la ñuy jànkonteel rawatina ci jamonoy nawet bi ndax la ñu xam ne rek mooy ay sareet la ñuy faral euh, di euh, dugg bu ñuy génn waaye jamono ji nag ñoom nee nañu amuñu fu ñu jaar ba doxi soni soxla la ko war rek mooy ndox ma leen a wër loolu yi nag euh, ñuy woo ñu leen di kilifa ñu jàppal leen taxaw leen ba seen jafe yooyu mën a saafara ñenn ña yeewoo ca quartier xayra 1 wala kër Serigne Mbaye Sakho seen ay kàddu ñu àndandoo teewlu ko xanaa ñu bëgg ko ñu ci jàppale rek waaw ba pare bi rek am suñu jaar dem marché loolu lañ ci bëgg bii mooy xayra xayra un ci kër ci comme bi euh, charrette bi ñu daan jaar nawet bu ñëwee dañuy teggi ndax euh, taataay yi dañoo bari lool am na yenn kër yi tamit dañuy am ndox des fois dañuy am ndox dañuy demee dem yi rek dañuy teggi daal teggi dafa metti lool bu ñu tawoon am ñu jàppale ñu kiiwal euh, ñu poñ yi teg ñu poñ yi waa comme ça charrette bi mën a am fu ñu aw charrette bi dañoo obligé di teggi di teggi teggi bu ñu daan def quinze minutes war nañoo mën a def léegi dañuy def trente minutes pour mën a àgg marché te wóorum daal comme que benn yoon boobu rek la ñu am pour def jigéen ñi wëri yi yooyu charrette bi teggi yi ak yoon yi naqar yi noonu du leen arrangé xanaa ñu jàppale ñu gëstoo ñu yoon bi ñu dimbali ñu dox bi tamit am na ñoo xam ne daal seen doole bariwul bu nawet bi jotee dañuy génn di wuti fu nekk te ni ñun benn bi ñuy teggee suñu xale yi ay xale yu ndaw lañ suñu taatu fenêtre yi ñuy jàppee parce que xale yi dañuy daw di génn loolu wóoru xam nga bu dee mbedd bu mag bi di nga mën a toppee soo ba xam ne mbedd bi moom ku fi jaaru mën ngaa mais bu dee mbedd yu ndaw yi moom yaa gën a xam doo ko mën a sóoraale loolu daal moom lañ soo dem soo leen daal yi ñaan moom sukkal ñu suñu mbedd yi loolu daal lay ñaan jàppale ñu daal waaw ay jigéen lañ seen suñu koy dem marché bu tawee duñ am sax buñ jaar borom sore yoon bi mën a tax ndax yoon bi day tax waaw te ñun la ñu am yëpp gaa nekk ci marché bi lañ koy sant leen ñun gërëm leen nag bu ñu jugee euh, Touba dañuy euh, dem ba Njaareem ca commune bu Kër Ngalgu commune bu Kër Ngalgu nag am nañu ambulance ku leen ko jox di njiitum réew mi euh, président de la république Macky Sall waaye nag euh, jaare ko ci Pape Modou Fall may directeur emploi ak président mouvement bi di sàmm sunum réew lu ni mel nag waral ci la di euh, maire bi di Serigne Modou Fall ñu gën koo xam ci Serigne Dame Fall di maire bu dëkkub Kër Ngalgu waaye nag di doom ci xalif général des bay Fall di Serigne Modou Mbenda Fall moom Serigne Dame Fall ne mbégte la ci am ak waaye di woon ak ñi kilifa ñu jàppale leen defaral leen seen yoon woowu jóge tey ba mutu fa kër ndal gu jàpp gàdd escale Serigne Dame Fall ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. bon doom yi ni ma ko gisee mooy kontaan rek ndax euh, kër ndal gu ba muy kër ndal gu ba léegi ambulance bu ci fi indi mosu fi am c'est la première fois mu jaare ci loxo Pape Modou Fall dale ci ndigalal président de la république wàccil ci ministre Dame Diop ñuy sant nag mbooleem responsable politique yi nga xam ne nii ñu ngi bokk benn bokk yaakaar ci taxawaay bi nga xam ne nii taxaw nañ ko tey fii ci kër Ngalgou di leen xamal ne kër Ngalgou de dañu amoon lu ñu tumuranke woon trop doon nañ ko jéem a faj ndax yéen journalistes yi woowoon naa leen fii parce que dem naa ba jël suma fond PNDL di jënd oto di ko modifier waat pour def ko ambulance mais xam nga yoon bi ak 4 x ak naqari bi tax na nañ ko bëggee woon amewuñ amewuñ ko woon noonu ba fan yële passé nag ñu amoon audience ak président jàkkaarloo woon ak moom it ne ko dañu bëgg ambulance bu ñu yóbbu ci commune Kër Ngaalgu ba président dig ñu ko mais wax dëgg yàlla bi ko Pape Modou Fall déggee. dafa jàkkaarloog man ne ma danaa la indil ambulance mais nan ma ko waxee woon defee na ko noona indil na ma ambulance tey ambulance bi nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gërëm président mais ñu ngi ciy gërëm it Dame Diop parce que keroog bi ñuy dem ci président ñun ak Dame Diop ñoo mais nan ñu ko waxee nan ñu ko diggee yoon noonu la dikkee taxawal ñu ko tey jii ci kër Ngalgou ak njabootu kër Ngalgou gépp kan ñu ngi koy ñaanal yàlla rek suñ borom jàppale ko jàppale réew mi yëpp loolu rek lañ soxla yoon bi naqari na yàgg na metti na parce que yoon bi am na benn euh, procès bu fi mësoon a ñëw après deux mille deux mille neuf moom moo ñu defar lan yoon bi nii mais boobaak léegi ñu ngi ñaan même kayit bi ma bindoon bi may def ambulance bi di ko yóbbaale ci président yoon bi ci laa ci laa ko boole man ak waa Taïba Moutoufa ak waa Ndindi ak waa Gadde Escale ba Kër Ngane kan yoon bi dafa départ fii ba yegg Touba Lappé kan yoon bi lu ñu soxal la te bu ñu sañan nii ñu jàkkaarloog président waxe ko ni bu ñu demee ba yàlla def euh, li ñu wut ñu am ko mu defaral ñu yoon bi te ñu ngi ko koy diis. kooku di euh, Serigne Modou Fall wala book euh, Serigne Dame Fall di meeru Kër Ngalgu waaye tamit di doom ci xalif général des Baye Fall di Serigne Modou Mbenda Fall. ka leen euh, jox ambulance bi nag di njiitum réew mi di euh, président de la république ka ko yombalal mbir mi nag di Pape Modou Fall may directeur emploi waaye jiite mouvement bi di sàmm suñu réew ma nga fa woon moom itam yëkkati na ci ay kàddu di xam ne ne ambulance bi kat euh, na ci waxtoom leneen lu mu xam ne rek mooy yoon wa jógee tey ba mutu fa gardestal jaar kër ngal bu nee na dana ko àgg nag njiitum réew mi ngir mu saafara ko leneen lu mu xam ne rek ci élection yi wooteef jàmm ak fa ñu ca toll Pape Modou Fall di directeur emploi ay kàddoom ñaanandoo teewlu ko ci ndigalu njiitu réew mi son excellence le président de la république Macky Sall ci ndigalu aussi le ministre Dame Diop qui est le ministre de la région nekk ministre du département de Diourbel bi nekk ci waa euh, collaboration waa coalition républicaine sàmm suñu réew ci la amee ambulance bi ñoo remettre ko tey commune Kër Ngalgou parce que gis nañ ni besoin la woon demande la boo xamante ni population yi soxla na ko te am bi ñu ko am dana leen permettre ñu mën a jël seen ay malaat euh, yóbbu leen en toute tranquillité parce que ambulance bi ambulance de dernière de telle sorte que yenn jafe-jafe yi ñu doon am à ce niveau donc bu ambulance bi ñëwee dina ko mën a corriger donc pour que population yi man cee jariñ bu baax a baax baax. ci wàllu santé gis nañ ni njiitu réew mi def na ci ay réalisation yu am solo donc mën nañ ci citer hôpitalu Touba mu nekk hôpital de niveau 3 mën nañ ci citer hôpital bi ñu defoon Kaffrine mu inauguré ko mën nañ ci citer hôpitalu Kédougou ak hôpitalu Sédhiou donc loolu lépp day wane ni njiitu réew mi am na foo xamante ni teg na si secteur santé euh, d'ailleurs boo xoolee ci li ñuy wax PAP2A qui est le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré donc li ñuy woowee industrie pharmaceutique dafa dellu si parce que tey boo xoolee am na médicament générique yoo xamante ne ak yenn produits donc le fait que Médis ñu démarré waat ko rek dana permettre na à ce que production médicament amaat solo occupé waat place bii nga xamante ne ni moom la war a occupé ci biir Sénégal pour le bien du Sénégal mais aussi pour le bien de l'Afrique euh, gis nañ ñu aussi comme ni ñu ko waxee woon sànq en wolof piste bi nga xamante ni mooy relier Diourbel ak Kër Ngalgou am na ay jafe-jafe surtout rawatina ci nawet bi donc je pense que loolu danañ ko àggale ci ki ñu ko war a àggale moo xam ne ministre Dame Diop moo xam ne président de la République pour que loolu bu jotee information boobu ñu mën Euh, ñu mën a taxaw ci loolu parce que am na programme bu ñu woowee PUDC te bokk na ci ay mission mu ra mu defar ay piste bokk na ci ay mission mu réaménager at ay piste je pense que ci programme boobu war nañ cee mën a dugal piste bi s'il le faut même ñu dugal ko ci programme yu gën a yaatu pour que ñu mën koo def goudron pour que population yi mën a déplacé wu oto yi ñuy yore aussi di génn dëkk bi donc mën a daw tranquillement te seeni panne seeni panne mën a wàññeeku Pape euh, Modou Fall di directeur emploi waaye tamit euh, jiite mouvement bi di sàmm suñu réew kàddu yooyu nag mu ko doon yëkkati démb ca kër ngalgu ca ambulance euh, ba ñu fa doon joxe mbokk yéen a ngi wéy di déglu rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba xibaar yi ñu wéyandi. di UCAB FM bu ñu jugee ngalgu googee nekk ca département bu Diourbel dañuy ñëwaat file ci Touba ci département bu Mbacké wax lu jëm ci wàllu élection yi file ci sous préfecture bu arrondissement bu Ndaam nag jamono ji wàccaayu élection yi waral jamono ji fu ci ne rek nit ñaa nga fay jógee ngir ñëw jël seeni carte seetlu bañ ca def nag ki di Moussa Kayta ma jiite commission ba la mu xam ne rek mooy askan bi dañoo xaar rek ba fan yu mujjee wala boog ba ca bis ba mu xam ne tamit muy la ca ëpp ca carte ya jamono ji commission carte bi ñuy joxe fii ci sous préfecture bu Ndam ay kàddoom ñu àndandoo teewlu ko. waaw waaw fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla rapport ak euh, lim bi ñu amoon ci carte nga xam ne jege woon euh, juróom benn junni carte ak lu teg fii ñu toll nii wax dëgg yàlla xel dal na bu baax a baax pourcentage bi ñu am ci liñ jot a distribué moom macha allah waaw nit ñi ñëw nañ bu baax a baax a baax ci seen carte te ñu ngi soññee comme tey rek moo ñu defee te dañu war a arrêté tey ci zéro heure bu jotee minuit waaw dinañ lancer un appel nit ñi nga xam ne jël seeguñ seen carte ñu ñëw lu mu gën a gaaw fii ci arrondissement Ndam jël seen kat yi te xam ni ñu ñu ngi fi tey ba zéro heure waaw ñu ngi fi ba minuit waaw di sàkku ci ñëpp rek ñu ñëw massivement li fi des ci seen ay carte ñu ñëw jël ko moom daal loolu ñu ngi ciy sonni ñëpp ñi nga xam ni jësee si jësee guñ seen carte daal ñu ngi leen di woo ñu ngi fii ba zéro heure ne ñëpp ñëw jël ci seen kat mais daal situation fi mu toll nii mën naan tey jii suñ ko doon xool au niveau national Touba kenn du ko ci distribution carte waaw nit ñi daal génn massivement ji ci carte à chaque fois sénégalais yi toujours dañuy bàyyi ba au dernier moment naan nañ xaar nañ xaar ñi doog a daw di dikk di buuxante loolu mel nii parce que ñun samedi fii samedi yëpp dañ koy liggéey dañ ko doon liggéey dañ ko doon distribuer carte mais samedi daawuñu gis sax muy dernier jour distribution carte yi nit ñi xam nañ ne tey jii ku si jëlul sa carte bu subaa doo vote moo tax tey jii ñi ñëwagul woon ñëpp dañuy daal di daw ñëw buuxante loolu moom loolu moom luñ tàmmale ci jikkooy sénégale alors que fi mu toll nii tolloon nañ ci jamono yoo xam ne wax dëgg yàlla duñ gis kenn wala par ay benn benn lañ doon gis waaw moom loolu moom moom lu lu lu ab sénégalais tàmm la te à chaque fois dañ ci soññee wax ci ba sonn mais kenn mënu si dara ni ñi moom tàmm nañ waaw actuellement ni tey jii loolu lañ moo waral nit ñi ñëw nii massivement di jël ci seen carte Kayta mooy que jiite carte yi ñuy séddale ca sous préfecture bu arrondissement bu Ndam bu ñu jógee su préfecture bu arrondissement bu Ndam bi nekk fii la ci Touba dañuy daal di dem ca préfecture ba nekk ca Mbacké foofee tamit uh, nit ñaa ngay ñëw di jël si seen carte ngir waaj uh, bisub suba bi muy jongante yi ñu fas yéene amal foofee nag uh, Modou Kassé ma jiite commission ba moom itam di xam ne ne jamono ji nag ña ngay ñëw waaye lañ ca rek mooy carte yu bare bari na mu demee woon ca élection yu njëkk la demee te ñu ci bari rek ñëwuñu jël si ko lu mel waral mu leen di soññoo moodu Kassé ma jiite commission bay séddale carte yi ca préfecture bu Mbacké ay kàddoom ñaandandoo teewlu ko li mu mun wax daal ci carte yi boo xam carte dafa am ñaari pàcc dafa am carte yoo xam moom la ñuy stock moom dafa nekkoon ci refonte totale bi ak carte yi deux mille vingt et ak carte yu bees yi nga xam ne ni moom lañ bindoon ci révision bii passé deux mille vingt deux bu njëkk ba amoon nañ lu ëpp ay junni junni carte mu ngi def mille trois cent quatre vingt huit carte des euh, moo fi donc junni ak ju ñetti téeméer ak ñeent téeméer yu manqué moo moo fi des ci carte yu njëkk yi carte yu bees yi amoon nañ ci ñaari junni ak ñaar ko ñett yi jël nañ moom ba actuellement fi may wax ak yow mu ngi def quatre cent quatre vingt quatre donc quatre cent quatre vingt quatre ñeenti téeméer juróomi téeméer yu manqué sax ñoo fi des donc pour wax le ñeenti téeméeri nit yoo xam ne ni jël seeguñ seen carte yu bees ak lu ëpp junneeg nang junneeg ñetti téeméer yoo xam ne également ci carte yu njëkk yi seen borom ñëw jël si bu ñu mënoon daal parce que tey la ñuy arrêté ba nit ñi également jéem a ñëw jël seen carte yi pour dem accomplir seen devoir civique lan nga mën a jàpp ne xëy ne moo tax carte yi des ci ak am luy seen jafe-jafe bon loolu nag moom mën na parce que affaire Sénégal man dama jàpp ne gars yi toujours li ñuy li xale yi wax dañuy xaar vingt ans rek bañ ne tey lay jeex ñu ñëw mais malgré loolu parce que gëmatuma que carte euh, yu njëkk yi junniy carte ak lu topp quand te ñooñu ñu ngi ci dëkk bi wala ñu ngi ci gox yi ko wër day xaw a poser problème carte yu bees yi tamit ñett ñeenti téeméer ak lu topp ci ay carte juróomi téeméer yi man bi tuuti nekk fi également ba tey ñu ne tey la ñuy arrêté bon man da franchement euh, sociologiquement psychologiquement mënu mu am Euh, euh, explication peut-être masse Pape Saer bi war nañ mun a xam peut-être lan moo tax nit ñi aussi ñëwuñu dañu tay ci politique bi dañu tay ci liggéey ainsi de suite en tout cas daal discours bi war nañ ko changer surtout leader politique yi def campagne ñuy gën a accès seen communication ci ñu dem jëli parce que yow booy wax nit ki pour nga bëgg a wote dem leen woteel diw mais kooku day fexe mu am lu mu mais bu amul lu muy wotee du baax topp ay caravane rek aussi ndiiraan mi te yoruloo carte pourtant loolu aussi amul benn njëriñ. Ah, mel ni am na benn manque information boo xam ne lu desee leer askan wi tuuti ndax ñëw mel na ni am na ci koo xam ne mi ngi doon moom da dafa jàppoon ne xëy na dina mën a voté sans ba ko koy mën a yooyu tamit doo ci xaw a indi leeral tuuti ah, am na ñoo xam ne aussi dañuy bàyyi ba jour élection ñu ñëw yor weneen carte jàpp na dinañ ko voté alors que duñ ko voté kooku lan la doon. waaw xam kooku dafa ñëw yor carte carte dafa amoon carte électeur carte électeur ba réer sa carte nag bu réeree da ngay dem moom dem na ba pare wut certificat de perte maanaam boo wutee certificat de perte da ngay wut quittance quittance ngay wut fa ñaari junni dem ñu doon la tiireel ko carte carte bu yàq bu réer moom borom day jënd quittance ñu tiireel ko beneen mënoo am beneen boo binduwaatee tamit sa carte du génn am na ñu bëri ñëw fii ne dañuy dañuy jël seen carte carte yi génn parce que dañu amoon te carte moom saa bu ma répété da ngay dem wuti set de perte dem jëndi quittance pour ñu tiireel la ba bay réeru ñeneen ñi ne aussi nag dañuy def peut-être man c'est vrai information mën na bañ a jàll koo xam ne toog ba jàgg rek kàttu yàgg yaa yàgg euh, réforme fédérale bu Ablaye ñëw ne dama bëgg voté wala léegi ni nga gis ñu ne damaa bëgg nga dindil ma loolu donc wax la ne la information sax du ñu euh, yi parce que léegi man damay gis télévision yi rajo yëpp ñu def ay sensibilisation maanaam mënu affaire information bi nga wax ne mooy ku sa carte d'identité réer moom da dem wuti ci trans wuti sa certificat de perte dem police te boobu mënu fi génn avant donc loolu aussi lu mat leeral la mais képp koo xam ne ni am nga carte ci carte yi CEDEAO yi mu am lieu de vote am lépp heure boo ñëwee fa nga bindoo fay ngay voté bañ lañ bind ca bu fekkee da amoon non vote ñëw ñu defal la changement d' adresse wala nga ñëw ñu defal la inscription carte bu génnee boo ñëwee jël ko da ngay dem voté wala bañ la bind yooyu moo fi am te nit ñi nag également mooy li may wax léegi nos acteurs politiques aussi c'est campagne électorale baax na damaa bëgg a nekk député baax na léeg boo bëggee nekk député dafa am nit ñu lay woteel nit ñi bu jël seen carte nu ñu lay woteel donc yow da nga war a wax danaa leen defal nangam danaa leen def mais waxal nit ñi dem seen carte bi ba pare dañu naan loolu aussi lu euh, a ngi gis ni askan waa ngi ñëw di bëggoon xam nag délai bi yéen a ngi si bëggoon a xam ah, nañu suba lay lekk officiellement ba zéro joxe officiellement ba zéro heure daal ñu ngi fi mais bu ñu toogee moom bu samedi euh, bii daal lay jeex bu subaa ci guddi gi dañu tëj yëpp def euh, situation bi waa SEDA administration ñu xam ku ci nekk ñaata carte lañ joxe ñaata daal suba xëy di ñëw di jël sa moom nit ñi ku ci nekk da ngay yor ba nga jëloon nga mais boobu amul distribution de carte Modou Kassé moo jiite euh, carte yi ñuy séddale ca préfecture euh, bu Mbacké lépp rek jëm ci élection yi wàccaa yi suba yi ba tey ci élection yi la ñuy euh, des dañuy daal di départ rek ñëw fii ci sous ci euh, sous préfecture bu arrondissement bu Ndaam ko ko jiite nag di Babacar Ibrahima jamono ji nag ña nga ca wàccaay wala mu xam ne rek mooy ña ngay def seen kemtulaay kàttan rek ba lépp yemb Babacar Ibrahima di sous préfet bu arrondissement bu Ndaam ñu àndandoo teewlu ko. wa lii moom pour euh, maanaam di suivre li nga xamante ne bii mooy matériel bi jógee di dem ci bureau de vote ñu xam fu nekk lan lan fa yóbbu lan moo donc moo tax ñu am euh, benn tableau nii di ko suivre waaw donc euh, moyen de travail kese la quoi loolu weesoo donc euh, policiers yi ak gendarmerie yi ci lieu de vote yi donc ñoom lañu jox matériel bi ñu récupérer ko demee incha allah ñu jox ko président bureau de vote waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla baax ndax Touba moom nekkul nekkul maanaam fu yombe def élection ndax ci wàllu lim amul fen ay bureau de vote mais yàlla suturaal dañu en tout cas waxtu wi ñu toll bu euh, lañ ko def mooy yóbbu matériel bi moom yàlla ñu ngi si baax a baax. Babacar euh, Ibra Mar euh, doon delsi rek ci matukaay yu jël nañ ko ci jamonoy élection yi ñu fas yéene def suba. di leen fàttali rek incha allah rabbi ci euh, élection yi incha allah rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ni mu koy faral defee saa su ne rek muy ab édition spéciale boo xam ne da koy def saa su ne rek ci lu jëm ci wàllu élection yi incha allah rabbi dara du leen ci ump ci wàllu élection yi mbooleem bureau yu nga fay voté ak fay euh, amal li la di élection yi ci biir euh, région bu Diourbel rawatina file ci dëkk bu sell bi la mbokk yi kon egsi nañ ci pàcc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yéenekaay yi ñu ci ànd ak Pape Saer Mbaye UCAB FM li gën a fës ci Papa Saer bis timide yenu leen seeni carte waa jongante yi yéeni kaay bi Le Soleil moo xëy di artooka woote mboolem askan wi ngir rek ñu bàyyi xel jongante ne kon ko war a amal Le Soleil yéeni kaay koy tënk avocat noonu la ko xamle sunu naataango yi xëy di xam le rek ne jamono ji kay daanaka lépp noppi na ci mboolem réewum Sénégal ndaw ñi nga xam ne kon ñooñu war a teewal ca pénc ma sunu naataango yi xëy di xamal ne juróom ñett ci ay coalition de parti yoo xam ne kon ñoom daanaka wër nañu bërëb yu takku ci biir réewum Sénégal ngir rek dagaan baatu askan wi noppi nañ ca ñoom jamono ji nag askan wi ñoo ci des ginnaaw bi nga xam ne kon kenn ku ci ne déglu nañ la ak la nga xam ne kon moom mari sa càkkute sa bëgg-bëgg wax nga ko askanu ñoo ci des ngir mën a dem ca mbañ gàcc mën a xool kan lañ ca tànn yéeni kaay bi Le ci ñi nga xam ñoo di ay Sénégal yoo xam ne kon war nañoo tànn ndaw ñi nga xam ne kon a teew ca penc ma yéeni kaay bi ne lim na ci téeméer ak juróom benn fukk juróom ci ay député yoo xam ne kon moom la ñu war jël ngir rek ñu dem toogal ci juróomi at yi nga xam ne kon moom la ñu séntu ca pencum ndaw réew mi yéenekaay bi xëy di xamal y voilà donc su naataango yi ñoo xëy di xamal ne excellente enquête yéenekaay mooy xëy xam na lool waaye nag jamono ji daanaka luy jot jot na fi mu toll nii kay askanu ñoo ca des ngir mën a xool lu jëm ci wàllu yi daanaka defonte bi metti woon na lool ci diggante langue politique gi kenn ku ci ne ku jege nguur gi war nga sa bopp sa morom la nga xam ne kon mën nga ko ca waaye nag fi mu toll nii wax ji wax ji askanu ñoo dese baat bi ñoom ñoom ñooy xool dëgg-dëgg kan lañ ci wóolu ak kan lañ war a jox yéenekaay bi di enquête xëy di xam ne ne jamono ji luñ ci mën di nemee koy fi mu toll a xam ne luñ ci mën di nemeeku jamono ji nga xam ne kon moom la ñu gisee lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne ko gis nañu ko fi mu toll nii nag askan wi ñoom ñoo yore seenu kàddu ñoom ñooy xool ke ko ko ni ki ëllëg ak jàmm Walfadjri quotidien xëy di xamal ne luñ ci mën di nemeeku lu jëm ci wàllu wi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko woote bi su naataango yi di xam le bu ñu ko ci sociologue bi nga xam ne kon Mamadou Wan Maaw la tudd moom nag ma ngay xiir koy selti lu jëm ci wàllu a taxawaay bi nga xam ne kon kenn ku ci nekk ci jongante yi moom moo la gën a puus ngir nga amal li nga xam kon moo jëm ci wàllu a a sereg gëstu goo xam kon def na ko ci li nga xam kon moo jëm ci wàllu jongante ak jeexital gu dana ko am ci li nga xam ne kon moom moo di doxalinu réew mi yénn kaay bi xëy di xamal ne beneen taskatu xibaar boo xam ne kon ma nga cay wax Bakary Domingo Mané moom nag ma ngi gis ne lu jëm ci wàllu ko jongante yi dafa doon a xam dëgg lu jafe-jafe la yénn kaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmi eh, eh, ko moom gis ne luñ ci eh, lu jëm jogante yi nga xam ne ko moom la ñu am di législative yi lu jëm ci moom di bi doon ndax waa Sénégal askan wi bindu ngir war a woote ndax ñoom ñëpp danañ génn ndax dëgg-dëgg nañ war a woote danañ ko def yéeni kaay bi xëy di xam ne loole nag ñu bëri bàyyi wuñ ci xel waaye nag lu mat a bàyyi xel la ci li nga xam kon moo di ji wàllu taxawaay bi su naata ko di xam ne ne jamono ji lu jëm ci taxawaay bi moom lañ cee taxaw loole doon na loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel su naata ko xam ne rek ne jamono ji lii ñu war a amal niki ëllëg doon jongante a test la ngir jëmee ko 2024 ngir mën a xool dëgg-dëgg kenn ku ci nekk lan moo sa ab taxawaay Sud Quotidien yéen kaay moom xëy di rek ne luñ ci mën di nemmeeku ab revanche boo xam ne kon moom la kenn ku ci nekk yaa sa morom moo xam ku jege moo xam bi doon nekk ci yéen kaay bi xëy di xamal ne kenn ku ci ne yaa ngay tëkku sa morom ne nag li nga xam ne kon ñàkkoon nga ko genn gox moo xam gox bu mën di doon sa morom fa kenn ku ne yaa ngi naan jamono ji yow yaa jël raw gàddu ko foofee ndax loolee dana am wala déet yéen kaay yéenekaay bi xëy di fàttali ne luñ ci mën di nemmeeku ab remontada kenn ku ci ne yaa ngi koy jéem a dig sa morom ci wàllu ko euh, ñu ngi di ki ëllëg ak jàmm di xamal nag ne jamono de liste yi nga xam kon doon amal lu jëm ci wàllu ko euh, campagne bi su di xamal ne ne jamono ji loole nag nemmeeku nañ ne kon gis nañu ko ci yéeni kaay bi kenn ku ci ne ak la nga xam ne kon wane nga ko ci diiru campagne bu amal ko ci ba mu jeex niki biig ci guddi su naataango yi ba tey di xamal ne dimanche dëgg dëgg ëllëg lañu koy gis ngir mën a xam kenn ku ci nekk lan nga man ak lan ngay peese ci diggante ñi nga xam ne kon sa sa booba ak léegi kenn ku ci ne am nga loo xam ne kon yaa ngi koy di sa moroom moo xam ñi nga xam ne kon dañoo lëkkale seen ay doole moo xam ne ci nguur gi yéeni kaay bi xëy di xamal ne kay jamono ji gi ku jëkk politique ak nguur gi mayante wuñu dara ku ci nekk yaa ngay tëkku sa morom jamono ji l'info yéen kay ne luñ ci mën di nemmee ko fi mu toll ni taxawaay ba doon na loo xam ne kon lu ñu bàyyi xel la bés bi le jour ne fi mu toll nii koy jubluwaay benn la assemblée doon kër gi nga xam ne kon bokk na ci li nga xam ne kon daanaka mën nañu wax ne juróom benn yi nga xam ne kon moom la ñu booba ak léegi fi mu toll nii ñu ngi koy bàyyi xel kenn ku ci nekk am xemem teef ngir bi ca mën a toog yeneen yéen kay ñoom la ñor bokk na ci ajjuwa ji nga xam ne kon ci ndakaaru ñibbisiwaat na ci biir réewum Sénégal moom ki fi nekkoon njiitu réew président Abdoulaye Wade yéen kaay bi xëy di xamal ne terp bu mag la nu ko amal foofu ci ndakaaru enquête yéen kaay moo xëy di moom la ko ñor bokk na ci wàllu bi nga xam ne kon moom jamono ji ak li nga xam ne kon moom moo di jamono ji société franco sénégalaise bi nga xam ne kon Soudan Investment Holding yéen kaay bi moo xëy xamal ne kay jamono ji eh, ki nga xam ne kon moom moo ñi di waa PNB ñoom nag Paribas ñooy ñi nga xam ne kon ñoom nag def na ko ci seen moomeel bu ñu sukkandikoo réew ci xam ne kon moom moo jëm ci xam ne kon def na ko ci rek am yi ca lañ doon wax duñu na si ñenn ñoo xam ne kon njàqare la lanu am ci li nga xam ne kon moom moo di ci lenn ci ay société bancaire ay jafe-jafe yoo xam ne kon ñu ngi ko ci dund yéenekaay bi xëy di xamal ne kay fi mu toll nii bëri na koy dund eh, te nag bëgg ku leen ca taxawu su naataango ñoo xëy eh, dina ko ca nettali igfm point sn nekk ci internet bi moom ma nga xëy di wax ci mbirum Mamadou Seck mi nga xam ne kon doon ko tuddoon ci wàllu force spéciale yi yéen kaay bi xëy di ñu xibaar ne kay moom këram ci boppam nag la ay def ko te ñaawteef dugg ñoo ko def lu tax ñu def ko yéen kaay bi xëy di xamal ne ubbi nañ tam l'enquête ngir mën a xam dëgg-dëgg ñaawteef gi kan moo ko def jeexale ko ak igfm point sn bi nga xam ne kon delsi na ci tam xarit gi mu ne eh, jamono ji waxtaane nañ ko ba xam kañ lay doon yéen kaay bi xëy

sant ko gërëm ko Pape Saer Mbaye mi ñu doon uh, jàngal li ci yéenekaay loolu yi mooy pàcc gi uh, tëj xibaaru digg bëccëg yi nees kiis kon ñu defoo ko pàttali ci li ci gënoon a fees bokkoon na ci li ci gënoon a fees ci xibaar yi ñu leen ko doon faram fàcceel suba di bis bi ñu war a amal élection yi file ci euh, biir euh, réewum Sénégal file bu ñu sàgganul rek du ñu génn wate ji la ko waral rek mooy ndox mu taamaa leen wër loolu nag jural leen ay jafe-jafe lu ni mel waral ñuy woo kilifa yi rek ngir ñu jàppale leen ñeneen ñi tamit ñu am jafe-jafe ñuy dëkk ca Xayra 2 wala quartier Serigne Mbaye Sakho bi nekk file ci Touba ñoom itam ña nga yëglu la ñu xam rek mooy jamono ji ndox maa tax amuñu fu ñu jaar te hôpital la ñuy dem loolu yi waral ñi la di kilifa yi ñoom itam ñu taxaw leen jàppale leen bisub suba bi tamit ci jëm ci wàllu élection yi ba tey loolu yi waral rek ñi la di askan wi song ñi la di préfecture ak sous préfecture yi jëli lii di quartier lu ni mel waral ki la di Moussa Kayta may jiite commission ba di xam ne ne jamono ji nag ñi ñëw ca sous préfecture ba di jël si quartier waaye bu dee Modou Kassé moom la mu xam rek mooy ñi ci ëpp ci askan wi rek matukaay yu jël nañ di euh, ab dëkk bu ne ca département bu Diourbel foofee tamit euh, am nañu ab ambulance buñ doon euh, dalloo démb ci ndimbalal crédit Pape Modou Fall jaare ko ci président Macky ca mbégte di woo ñi la di kilifa yi ñu jàpp leen ca yoon wa dox diggante tay ba mu tufa Garde Escale jàpp Kër Ngalgu ki la di Pape Modou Fall tam di xam ne ne doléance yooyu tam dina ko àggee ci la excellence président de la république mbokk yi lii lañ amoon yéene àggal leen ko ci ay xibaar sant leen gërëm leen euh, Cheikh Bey mooy ki ne ci moom leen ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye moo leen ko doon jottali Papa Ser Mbaye mooy ki réalisé euh, xibaar yi sant leen gërëm leen rédaction bu rajo UCAB di leen jox di daje incha allahu rabbi yi juróom-ñetti waxtu ci guddi ngeen fas yéene ci ànd ak Papa Ser Mbaye di ñaan yàlla sunu borom mu defal ñu jàmm sutura ak teranga barke borom dëkk bi ñu doon àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf